que am nga ñett nit yoo xam ne c'est des gens qui comptent beaucoup pour yow euh, ñoo xam ne tey euh, bëgg nga leen euh, jaajëfal bëgg nga leen encourager bëgg nga leen exprimer sa sa gratitude ak sa reconnaissance et ñetti nit yooyu ñan la. yaa ngi may dugal nag ci situation bu xaw a jafe. <laughs> ndax boo njabootee ñu bari bëgg lim ay ay ay ay ay nit. c'est très très c'est c'est c'est un peu difficile. ma dimbali la. da nga bëgg dimbali. waaw. na may dimbali. ma jox la tur. jox ma. tur. non mais koo ma jox déjà koo mënti wax ku mënti nekk je serai obligé de nangu parce que yàlla dafa def ma doon ku ku xaw ku njaboot. Euh, malheureusement mes parents ne ne vivent plus donc sinon je les aurais mis en en tête de liste parce que vraiment ñoom ñooy. ñi nga xam ni ils euh, m'auront marqué euh, ma famille oui mon épouse mes enfants je suis très attaché à ma famille ça c'est c'est c'est c'est vrai je suis très attaché à la famille donc même bu ma leen di dégg ci politique nii ça me ça me malheureusement boo duggee ci campagne les gens son obligés de bouger pour Oh, jéem la jéem la jàppale doo bëgg ñu kii. vos parents. Euh, euh ils plus de ce ils de ce monde. Euh, mais dama fay dem di leen ziyaare ji dimanche bu nekk ba tey tellement y a de l'attachement du ma def dara te dew ma foofu ziyaare ji leen. ils sont où. ñu ngi tëdd fi Pikine dimanche bi passé bi ñuy tàmbali campagne bi fala fala ubbe sama campagne c'est comme ça mais ça je le fais depuis. le décès de mon père il y vingt deux ans maintenant. dañu lay wéetal parfois. ba tey oui moo tax toujours damay dem parcelle j'aime bien entrer dans la chambre foofu toujours le même lit même armoire ba tey bon ba demee toog bi ma fa ñëwee fekk ko mu tëdd yenn saa feebar yenn saa nga ñëw waxtaan ak moom c'est des éléments de, qui me manquent et qui me donnent du qui me en cas de difficulté. ban wax la la sa waajur bu góor ma sa wax boo xam ne ba tey yaa da nga ko def njegenaay yaa ngi koy doxee parce que da ci gis njëriñ. moom mooy li may def nii mooy muñ vraiment muñ. Euh, je développe yenn saa résilience boo xam ne même moi je suis un peu étonné tellement coow li mën na bëri wala yenn mbir yi bëri mais bon je dis lii du dëgg dëgg dina mës a feeñ yenn saa yi mën na xaw a yeex tuuti mais bon en tout cas ça fini par euh, par sortir au grand jour mooy li nga wax léegi on m'a accusé de tout moom moom Pastef lañ njëkk a wax mooy financé Pastef maintenant on dit que non c'est pas vrai c'est l'inverse mais alhamdulilah parce que. Euh, période c'est un exemple que je donne hein c'est pas autre chose. boo boo waxee muñ dafay trouver sens période damay dégg souvent ñu bari di commentaire euh, di naan vous êtes quelqu'un de très résilient euh, dund nga fi période yu métti métti mais kenn du xam loo xalaat kenn du la dégg nga wax kenn la dégg nga nga nga du sax du sax doo kaas walla doo def dara buñ lay wax loo xam ni dëgg la. tu n'as rien à dire ngay noppi parce que li ñuy wax dëgg la buñ dee wax loo xam ni du dëgg dañ ko sos di wax lan nga mën dem taxaw ci télé bi rajo bi walla wax ay nit nañ la waxal amul njariñ tu di écoutez moi je continue maa ngi ci yoon wi naa topp yoon wi puis mu mu mu jeex c'est ça te peut-être aussi xëy na sama éducation à la base eh, dimbali na ma ci loolu mën a muñ di di déglu tekkiwu li nag du am lu ma metti wala du am lu ma neex c'est c'est euh, mais bon euh, xam nga dund moom da ci ciy jàng bés bu nekk eh, eh, jàng mi du jeex tu en apprends. gis nañ bi ngay départ sa campagne euh, sa soxna di la di la ñaanal depuis quelque temps gis nañ ko muy muy yëngatu. Euh, ci wàllu politique bi. après elle va se ranger elle l'a fait en 2017 bi may campagne euh, législative bi campagne bi jeexee euh, mu arrêté. 2019 aussi elle a refait la même chose ci moom sax laa gisee campagne ba pare woo nit ñi ne leen bon mission bi jeex na na ko nekk toog këram et c'est ce qu'elle a fait ba bii je suis candidat elle a elle la même chose et je suis sûr. bu élection bi passée là aussi politiquement c'est fini elle s'arrête c'est long compagnonnage. lan nga koy wax oui oui oui c'est c'est depuis université. combien d'années. ah sama taw am na 32 ans maintenant un peu plus. elle est à vos le temps. dans les moments difficiles Ah oui, oui, y a eu des moments difficiles, y a des moments de gaieté, y a des moments difficiles comme dans toute vie. y a des hauts et des bas, mais bon, ça reste dans la maison. On la de temps en temps. Euh, c'est quel, le mari peut juger sa femme, c'est quel genre d'épouse Non, non, je veux vraiment pas entrer dans ces... C'est une femme qui est, qui, qui est bien, qui s'occupe de la maison et voilà je préfère ne pas parler de la famille. yaa ngi dugg euh, ci yaa ngi bëgg a jël fonction présidentielle ça va vous éloigner davantage de euh, de de de de votre famille. ma famille de vos est, enfants. ma famille est habituée à ne pas me voir parce que j'ai eu des responsabilités assez tôt et c'est des responsabilités qui m'ont éloigné de la maison donc euh, même déjà directeur général des impôts je voyageais beaucoup j'étais plus sama yaram bi xam nga lu muy xasan fi mu nekk. liggéey moi j'aime bien travailler voilà donc euh, c'est c'est ma passion c'est mon divertissement aujourd'hui focus campagne électorale et si on est élu focus travail régler les problèmes H24